fii ci fu fës lan koy dore premier ministre Ousmane Sonko déclaration politique générale nga xam si nag wax na ko amal mi di premier ministre Ousmane Sonko te président euh, Bassirou Diomaye Faye jàpp nag li nga xamante ne si nag moom moo di li nga xam moom moo di date bi se li nga xamante ne si nag moom moo di le treize la jàpp li nga xamante date bi pour li nga xamante si ne moo di déclaration politique générale te dimanche euh, le douze wax nañu tas li nga xamante assemblée euh, nationale ginnaaw moom mi nga xamante ne si ne moom moo di ki nga xam moom moo di conseil constitutionnel jox na ko digal pour rek mu mën a tas li nga xamante assemblée nationale mu nekk nag euh, loo xamante ne si nekk instant bi ñu ci bari yaakaar na ne assemblée nationale rek dañ koy tas ci ginnaaw nag ki nga xamante ne si nekk moom moo di. ki nga xamante ne si nekk euh, moom moo di euh, président Bassirou Diomaye Faye ndigal li nga xamante ne si nekk euh, jox nañ ko ko jàpp na ne la dina toj li nga xam si nekk moom moo di assemblée nationale dina ko tas mu nekk nag loo xamante si ne du bett rek benn sénégalais daal si sunub yaakaar yéen jaajëfal bu baax